dama rafetlu si eh, contribution yi ngeen di def nii pour dimbali ni nii si affaire feebar bi bon vraiment kontaan si trop lii nga xamante ne honorable suñu honorable député ak responsabilité yi nekk Pikine fii génn nañu pour jàppale askan yi nga xamante ne dañu néew doole si corona bi parce que lii feebar boo xamante ne vraiment eh, nit ku nekke war na koo moytu daw ko ba nga xamante ne fu daw yem te man naa li ma si gën a kontaan parce que am naa occasion pour ñaaxaat parce que nit ku nekk am nga say xeet am nga fi nga bokk tey tey ñaaxaat sama mbokk origine guinéen yi même bu dee ay sénégalais lañu mais ay guinéen lañu mais ma leen di wax nañu porter seen masque tous les moment ak mu ah, euh, continuer waat de raxas seen loxo yi ak javel yi vraiment euh, je je satisfait pour combat bi nga xamante ne jël nañ ko pour euh, pour pour lutte contre la coronavirus vraiment dama kontaan trop trop trop trop